ginnaaw ba commissaire Diédhiou am kàddu yu mu leen dénk ci par rapport ak li nga xam ne jot na am ci Touba ak Mbacké ñu defal leen ko rek ci kàllaama may Kocc ci guddi 15 jàpp 16 avril 2020 ay côté 2 heures du matin poste police bu Mbacké woo nañ leen téléphone maanaam le de quartier bi moo leen woo xamal leen ne am na ay sambabo yi nga xam ni dugg nañ ci koñ bi foofu am fa ñi nga xam ni nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir dëkk bi di wër dem def fa daar daar dem fa bañ fa demee nag malheureusement fekkuñ leen fa ñu gis fa soxna si nga xam ni wala borom kër gi nga xam ni Samba booy jot nañ ko gaañ si jamono biñ ko jëlee indi ko fii si poste bi di ko déglu am keneen ki nga xam ni ootewaat na si Daaru Salaam extension xamal leen ni am na ñu nga xam ne attaqué waat nañ foofu beneen kër si noonu commissaire bi ak ay élément am génn dem pour xool ñooñu bañ demee ñu def benn reconnaissance daqante ñoom di xool fan la ñooñu dugg jotuñ leen gis ñu retourné waat ñëwaat si fi ñu jógee xool seen trace ba mujj gi ñu topp leen topp leen bañ dem ba si dëkk bu ñu naan foofu lañ dem làqatu woon bañ fa demee yàlla dimbali ñu bañ fekk fa ñett si yi nga xam ni bokkoon nañ si ñi nga xam ni yaakaar nañ ni. ñoo def ñaawteef yooyu noonu si seen biir defin yooyu noonu nag ñi nga xam ne jot nañ leen songu am na ñi nga xam ni gaañ nañ leen si damm nañ si seen loxo jël nañ si seen alal lu demee ni xaalis wala ay ay ay téléphone ak ay tel ay télé ay téléviseur si biir loolu tamit am na benn ndaw soo xam ne bu am ay fanweeri at buñ si jotoon a enlever yóbbu ko ba si àll bi ñu bàyyi ko foofu mais alhamdulilah mujj nañ ko gisaat fekk ko si àll bi comme ni ko commissaire waxee rek ba ñu demee def perquisition seen fi ñu leen fekk foofu noonu fekk nañ fa ay matériels yi nga xam ni dinañu ya jox yaakaar ni ñoom ñoo def ñaawteef yi nga xam ni moom lañ la ñu toppee mii association de malfaiteurs ñu mel ni lu mel ni ay coupe coupe ay jaas lu mel ni ay kuul yoo xam ne mën nañ see dóor nit di si gaañe nit ak lu mel ni ay fetalu artisanat fetalu tëgg ak benn ñaari moto jakarta yoo xam ni fekk nañ ko foofu noonu bañ leen indee nag déglu nañ leen xool nañ leen saytu nañ leen am na li nga xam ni moom lañ la ñu toppee muy association de malfaiteurs ñeneen ñi nga xam ne ñoo def ci bande bi moom ñu ngi la ñuy wëragum gisaguñ leen loolu mu ngi xew woon ci Mbacké ci guddi 15 jàpp 16 avril 2020 ci diwaanu Touba tamit am na ay xew-xew yoo xam ni kii nañ ko fa euh, ñu ngi ko fa doon jàmbat si lu demee ni marque couvre-feu bi nga xam ni le président de la le le ministre de l'intérieur décrété woon na ko ñu gis ni am na ay samba yi nga xam ni dañuy profité si loolu di def ay ñaawteef di songu alalu jàmbur yi loolu noonu nag ba mu amee le commissariat spécial de Touba am na ay jumtukaay yu mu si defoon amoon na ay dispositifs yoo xam dispositifs yoo xam ni tegoon na ko pour jàmbaar ak ñooñu loolu permettre ni. ba si ci guddi 6 au 7 avril am benn band bu fukki nit ak ñaar dont cinq receleurs juróomi nit yoo xam ni dañ la ñu toppee maanaam dañaa euh, yombal sàcc gi dañaa jël yëfu jàmbur luubal ko yombal euh, ndey sàcc yi démantelé woon nañ leen foofu noonu bañ leen démantelé ñooñu li ñu doon def mooy cambriolé lu demee ni ay boutique alimentation générale lu demee ni ay ay bijouterie boo xoolee xayma ko yëpp yëpp am na lu toll ak fukk ak juróom-ñaari victime ñoo xam ni ñii gars yi songoon nañ leen jël si seen alal ba ñu leen dégloo tamit parce que ñooñu ñu ngi doon jum ñu ngi doon am jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy utiliser te jumtukaay yooyu nekkul lenn lu dul charrette ak ak fas donc doo ko mos a yaakaaree ni ñoom loolu mooy seen mooy moom la ñuy moom la ñuy def mais ba ñu ko gëstoo ak benn vidéo surveillance bi nga xam ne moo ñu permettre ñuy identifier leen. yoon teg na leen loxo ba talaata bi passé lañ leen jébbal procureur beneen euh, mbir mi nga xam ne amaan na si liggéey bii nii si euh, couvre-feu bi ñu nemmeeku ko si mooy am na ay dawalkatu oto ak ay dawalkatu moto yi nga xam ni sàmmante wuñ ak li nga xam ni moom la ministre de l'intérieur wax muy arrêté bi nga xam ni mooy tere dem beeg dikk diggante dëkk ak dëkk ba nga xam ni am na ay samba booy lañ leen mën a ooyee sax parce que képp ki nga xam ni sàmmante woo ndigalu autorité bi Samba Boye lañ la mën a ñooñu ñu ngi si doon def benn liggéey di jël ay nit si biir dëkk bi fii Touba di ko jëmale fu mel ni Diourbel Daaru Musti ba dakaar ba ñu ko xamee nag def jël nañ suñu dispositif jël nañ suñu matukaay ba nga xam ni permettre woon nañu ñu jàpp si lu mat ñaar fukki nit ak juróom-benn si biir ñaar fukki nit yooyu noonu ak juróom-benn yi mën nañ wax ni fukk ak juróom-ñaar yëpp. ay chauffeuru oto lañ oto yi nga xam ne ñu ngi koy wooyee War Gaynde wala Allo Dakar juróom-ñeent yi mu nekkoon ay conducteurs moto Jakarta yoo xam ni ñoom tamit si loolu lañ doon def di jël ay clients fii di ko yóbbu si lool ginnaaw bañ leen dégloo jébbal nañ leen procureur si fan yi nii.